sëñ Saliou foofu la nekkoon. mais ci ci yërmande ba mu yeewoo dégg naa xel koom kanam gi sadd ndax yooyu. waaw euh, dafa daal def xale yi bu ñu ko bësaan sax. waaw ba yoo naaw. waaw ñu tàpp ko yow keroog bu diggoog moom doo bës da ngay génn. ndax moom sëñ Saliou li gëm nee na mooy yoo bi wërsëgëm ci ñun la nekk. ndax 24 heures lay dund. ndax dégg nga. est-ce que yaa ngi comprendre. yoo mm-hmm. wërsëgu yoo bi. sëñ gëm na ni ci yaramam la nekk moom ci suñu yaram yi la nekk kon dañ ko war a bàyyi bu mattee mu matt naan li muy naan mu jug. bàyyi yooyu matt ko. léegi nag xam nga ni foofu ku dul borom Touba yeggoo ah, ñun dañuy pompé. borom Touba moo mës ta xasenu moo mës ta toxoñu moom la fel daa daa sam. ku dul ku dul ñoom rek foofu ndax borom Touba fel yi da ko daa sam ba doo gis baaraam yi dégg naa deru baaraam yi. bi ko sëñ Abdou borom dër bi laajee ni ko ndax da la dul matte ni mu ñuy matte mu ni ko mu ngi may matte ni mu leen di mu ni ko ndax da ko dul yégee ni ñu koy yégee mu ni ko maa koy yégee ni ngeen koy yégee da di nun buñ xasanoo daj bànneex bu dul yàlla waaw aw wuy matt aw yoo wuy matt aw yoo wuy matt eh. aw waaw eh. ki bës ni da koy tàpp nga nga nga mer ci tàpp googu mu ko tàpp li tax mu naqari la mooy da ngaa jàpp ni wërsëgam ci sa yaram la nekk da koo war a jël sëñ Saliou Mbacké rek yërmande ci sëñ Saliou la yem